nataal fukk ñetti fan bi mu dee yeesu dekki na waaye xaritu yéesu yi nanguwuñoo gëm li leen jigéen ña nettali ci ngoonu bés bi mu dekkee xaritam yi dajewoon nañu ci benn néeg te bunt yépp ubbu ci loolu yéesu ne nërëm seen biir nee na jàmm nekk ak yéen ay xaritam gis ci dëgg-dëgg ne yeesoo ngi dund waaye ki ñuy wooyee Thomas nekkul woon ak ñoom bés boobu to bi mu yegsee ñu nettali ko waaye mu bañ a gëm ne yéesu dekki na mu ne su ma gisul ay pax yi nekk ci loxoom te defuma ci samay baaraam duma ko nangoo gëm bi juróom-ñetti fan weesoo yéesu newaat nërëm seen biir te ci bii Thomas mu ngi woon seen biir yéesu ne ko dugalal say baaraam fii te xool samay loxo Tomaa ci boppam soog a nangu ne kii yéesu la ndax gis na pax yi nekkoon ci loxo yiñ ko daaje woon ca bant ba mu door a gëm mu ne yéesu sama boroom ak sama yàlla